a nekk te nag mooy borom këru sumburu macha allah. bay oh, mbay kontaan na. kon kay bu ñu déggee information boobu noonu pour mu leer. waaw yow lañ ko war a laaj. il faut ñu laaj la nu mu demee loolu. non Evenprod gis nañu liggéey bu rafet bi nga xam ne moom la fa doon def moom Soumboulou Bathily euh, ñu xëy rek dégg ne moom jóge na fële ca Evenprod léegi am na lu muy préparé xamuñu nag lan la ci seen chaîne boobu nga xamante ne moo di euh, Khass TV euh, ñu di ko ñaanal tamit avancement. Mhm. mbay léegi yow naka nga gisee loolu. ah. man man ñii naa la famille bii bu leen ma bu leen ma si dugal yéen a may. déedéet déedéet famille bii bu leen ma si dugalati famille bii bu leen ma si dugalati. Fass yaa ngi may tooñ. Fass bu ma dugal si yii. xam nga xam man waxuma de yaa ko tudd yaa tudd turam. yaa leen tudd yéen ñaar yéen a tudd turam yéen a tudd ñi nga xam ne man famille boo xamante ne ñu ngi sël buzz. ñu ngi sël buzz ah su waxuma nag ba tey de. ah yaa ngi sël buzz ngi sël buzz tudd ma tudd ma tur. tudduma dara comprendre waaw léegi d' accord nañ famille boo xamante ni ngistal bës ngistal bës ngistal bës d' accord neen mais àdduna xam ne ni yow Ablaye Diop Khass da nga ko bëgg déedéet déedéet Ousmane yaa ngi la non xam nga non non yaa taxaw ci àdduna bi yëpp wane nga féeteeg moom ak li mu la def li mu la defal déedéet oustaz euh, xaw ma man damaa <laughs> ngi jeexal sax <laughs> billaahi wallaahi taala non Ousmane Modou Fall moo doon waxtaanal léegi moo tax barki alxuraanul karim billaahi Ousmane yaa ngi may tooy billaahi du ma. waaye ci lan. billaahi mais yow taxaw nga fi nekk. wallaahi ne sumbulu bàccalee la gënal ku yor bakkan di nooyi. non waxuma ko de waxuma ko de ma ko de. musuma ko wax de dogguma la sax Ousmane. waaye li ñuy wax ci ci Sénégal mu ngi nii. Euh, li ñu naan bukki fu ñu nekk rek dañuy lekkante man li ma xamul mooy tey da ngaa baax suba ma ne da ngaa bon. Hmm. munoo toog. yow foo foo toogee fa Ablaye Diop fan laa mos fan toogee di wax di wax di wax tur yooyu. ah mais VAR am na non fan laa mos a toog na bëri na bay non non non non wa wax wala waxuma. yow mbay fii nga dem kër Ablaye Diop xaas ba police bay duma la fa duma yi metti yàggut fàtte xaju fi Ousmane. léegi daal xam naa waaw foofu rek nga daan nekk. bay nañu waxante dëgg. non non léegi yow kon fii tey. Even Pro waxal dëgg la xam nga Even Pro. équipe internationale la. waaw. kenn du ko du ko kafee mm-hmm. even prod soo ko even prod barki Serigne Touba fi international la dëgg la du moroomu site yu ndaw yi yooyu ngeen ngeen tudd comprendre ban mooy site moom yu ndaw yooyu yan site yu ndaw Xaas TV nga wax xanaa yéen koy bu leen tudd télé bi xam nga lii moo tax ngeen am am problème. ay non dañuy laajte looy wax télé Sénégal bi ngay wax. waaw télé Sénégal xam nga li ma la wax. du ngeen fi looy wax tonton tonton Medoune ngay wax impro. non déedéet déedéet. waaw kon ban ban si bu ndaw site yu ndaw yooyu ngeen. ban site bu ndaw ngay wax tudd télé fii import du moroomu xale. import <laughs> international la import ku ko bàyyi tamit. yaa ngi si erreur la wala event prod event yaa ngi si erreur comprendre nga. man sama yoon nekku si wax yooyu comme yi leen ma si seega daa am benn ko ko foo ñoo xamante ne bës si boppam moo leen sonal man nag sama yoon si man bokkuma si benn nit ñoo xamante ne ñoo bëgg bës yéen a leen tudd. yéen a leen tudd sama yoon nekku si ñoom yéen leen tudd waaw ku ma woo tamit man naa am lu ma la tontu ku ma woo damay tontu xam nga ni ma laa wax. man damay tontu a ñaawee mbay mbay mbay yaa gën a ñaawee. li am na lu ci louche de. fi yaa ngi nii. waaw non oh, image bi rafet na. xam nga ne lii dafa mbay nag te Yacob laa jub xaas da nduroo mbay. yéen a da ngeen nduroo xoolal sa jëwam bi ak sa jëb bi benn la. man du wax ak ku ku kuy warkat man. Abdoulaye Diop Khass kan mooy eh, wor dama doon nekk du ma wax ku wor euh, workat mbay nga ne la workat du ma wax ñi nga xam ne dañuy toog hmm, di aar serewaate du ma du ma du ma wax ñoom du ma wax ñoom n'importe quoi. lu génnee Abdoulaye Diop Khass kan moo ciy enregistré waate. non a tudd yaa tudd seen tur. yow kan la la enregistré yow ñaata nga daan passe taxi boo fay dem. Ah? boo fay dem ñaata nga daan passe taxi. <laughs> Ousmane yaa ngi nag xam nga mbay Ousmane gisee ma dugg ak moom fii. waaw moom mbay bukki yi moom mooy def fu mu toll naan Sénégalais dafa bari ay bukki. waaw kon yow bul génn sa bopp ci bukki yooyu ndax yow yaa ak Abdoulaye Diop xaas mi ak sumbalu ko. ba pare naan àdduna dara du fi leere. xam nga lan la waaw xam la xaaral xaaral rek moo moo moo moo woo ah, kii moom woote. xam naa ne day yaa fi toogoon wax ci wax fi li ngay wax. ñëwaat toog fii bëgg non am na loo xamante ne fii nag moom fii nag moom fii la lépp di dama lay wax rek gis nga bukk yi fii la lépp di ne bu leen ma ko laaj parce que man daa am ñoo xamante ne ah ay workat duñu du ma ñoom ay kii ay ñoo xamante dañuy enregistré ah. ay ñoo xamante dañuy jëw allo damaa ñëw si plateau ñu may ñu may toon toog si benn palaato ñu may tooñ di ma tuddal benn sëriñ te man sama yu nekk si ñoom ëllëg nag bëgguma nag nga gis vidéo di daw nga may nga ngay ngay wax lëx mooy xartan man duma xartan wax nag sëriñ bi maa ngi lay ziar. delloo ziar. baa yaa ngi ci jàmm. waaw. Ah. yaa ngi direct télé Sénégal TV. waaw mbay dañu toog di waxtaan ak moom. parce que xam nañu ne Ablaye Diop xaas ak Soumboulou Bathily ay waayam lañu te fu ñu masaan a gisee mbay këram lañ koy fekk ku ko daan seet kii euh, ñu gis ne Soumboulou dafa dañu dégg ne dafa jóge event prot léegi nag mbay moom euh, man xamuma tey nga ne tey dangaa baax suba nga ne danga bon waaw léegi mbay nag lu ne mi ngi leen koy mu ngi leen koy wax fii ci sama léegi nag man bëgguma ko toog fii di di yàq nit daal moo tax moom moom moo la wool boppam mbay moom wérut <laughs> lëx nag yaa ngi tooñ de mbay wérul waaw mbay moom wérut waxi mbay jurut doo fa doom ndax lu mu la mën di wax tey ëllëg mën na yow nag yaa ngi bëgg a ànd ak man parce que man nee naa ko mënuma bëgguma xam nga tey nit da ngaa baax suba nga ne da ngaa bon waaw xam nga booy xas nit waaw te ki nga xas bëgguta bëgguta mel na yow waaw kooku boo ko xasee bu ko mettee rek moom la mu war a doon dóoru d'accord mbay mi tey ji bu nekkoon tubaab <laughs> oh, ko coupé de dañ koy déglu ba pare yaa ngi fa am solo waxal mbay moom waaw suñ ne ko woon suba ak jàmm nga mel ne Abdoulaye Diop xaas. waaw. bu gi dina yàgg lool ci moom ngir bëgg a mel ne xaas. xaas buñ ne ko woon suba ak jàmm nga mel ne. laaj na loolu a dañ ne. moom ak waa mais waa mais yow tamit ndax da ngaa bëgg ne Abdoulaye Diop xaas moo gën mbay. waaw waaw. nga ne xaas moo gën. ma ne yow da nga bëgg ne Abdoulaye Diop xaas moo gën mbay quoi. wàllum gëneel yàlla xam waaye bu dee dimbali ay doomu aadama. waaw mhm. ak maandu. lu am solo weewu weewu weewu xaat wala daalu maraakis du xaat moo ko gën moo ko ëpp mbay. d'accord léegi yow lëx li mën naa la ñaan dara. waaw. Euh, gis nga ñun ñëpp ay juddu lañ te yow ni ngay waxee xam naa nit ku baax nga. te mbay mii dafay sagu waaye ku bëgg Ablaye Diop xaas la. est-ce que doo doo ci dox tànku jàmm pour jubale leen ñoom ñaar. non non doo ko laaj si si li nga ko wax. diggante ñoom ñaar euh, kee may ma may ma dafa ndax dafa bàyyi. mbay laa la mbay. waaw. mu jëmm la du bëre ma. waaw du xale de. du xale de yàlla na crédit bi jeex. yaa ngi dégg du waaw. waaw déglul déglul mbay. la mu def ba xuloo xaas. Mhm. ñoom ñaar la su bëggee jubóo fa mu jaaroon ba xamante moom bu fa jaaree moom xamante moom jubóo. waaw xam nga moom moom moo seede ne yow xaritu xaritu euh, xaas nga. ma xalaatoon na rek xëy na mën nga ci dox tànku jàmm te mbay mi mbay kum ne la kum ne la ab kum ne la Ablaye Diop yow laa bëgg ku dul Ablaye Diop xaas de waxul dëgg. mbay laa la mbay sama jëmm bu ne man su ma na tegu yoon ma jubale ko te xaas tamit leer na ma leer yàlla xulóot ak mbay mu temps bu ñu xulóot mbay jàpp d' accord. voilà mais mbay mi lu neen tey ji boo lee ëllëg microbe bu tàccee demeen yaram day xasan faaw ma ko toofa doon ci bañ moom li ko sonal mooy sa tur mi am bës wala di bañ xeew xew yi te affaire yi doon xew carrière moo gën bës d' accord te moom ci la nekk moo tax d' accord kon yow li ñu ne sumbulu dafa jóge Evenprod da danga koy dëggal dama ma ca man sumba ba muy dugg dama ko damaa taamu. buy génn yëgu ma ko di. yaa ma gën a neex ñëpp. d'accord yow yow yow kontaan nañu bu baax a baax. am ah, mbay est que xam nga ni mbay dafa bëgg xaas. daf ko bëgg ndax ndax xam xarit xam ba xam ki muy àndal. kii xaritam moo tax ma bëggoon kii dox ci tànku jàmm. non non kii damay dégg muy def ay ay vidéo aussi moom man laaj laaj ko. ndax moom moo si gën man foofu xaw ma fa dara. dama bëggoon rek mu dox ci tànku jàmm. even produit moromu site yu ndaw yi even pour ban mooy site bu ndaw fii dara Sénégal bi déedéet site yu ndaw yooyu laa wax yooyu ngay tudd xaas TV yaa ko tudd de comprendre nga ay site kii kii yoo xam ne duñu fay ay seen élément ba élément yëpp de daw man duma wax ak ñoom waaw site yoo xamante ne ku ñu liggéey loo nga daw bàyyi leen fa comprendre nga man da nga fa liggéeyee xaas TV non déedéet man sama yoon nekk si de waaw man fi mu nekk nii mhm. euh, euh, euh, even pour ah even pour yàlla nañ yàlla nañ nekk si jàmm rek ah. waaw duñ borom benn borom si site bojo bojo Ah, mu ngi noonu alors émission bi li ma leen ko waxee woon rek man ngeen ci xaar lu ne Fama Kassé ñu ngi lay ziar bu baax nee na mu ngi lay. bëggeel moo ko sama yaay nuyu Mbay ah, ñu ngi lay yégee bégee bu baax a baax a baax yow Fama Kassé Mbay xam naa bu ñu jógee ci loolu rek usman dañuy dem directement ci euh, li nga xamante ne moo fi xew bu yàggul di barki démb ñu gis euh, Viviane Ndour ak Bouba euh, seen complicité boo xam ne jaaxal na ñu bëri ci mariage bi nga xam ne moo fi amoon fan yi nit ñi ne Bouba Ndour est-ce que du delluwaat ak Viviane Mbay góob ko de. foo ko teg. non góob ko. nga teg ko fan rek. góob góob weesu na ay ay Viviane ah. weesu na Viviane. non non du ko def loolu moom xam naa am naa yàq nii du ma sa nekk. ndax ah, loolu moom moom wax dëgg yàlla. ah mais yow yaa yàlla may. déedéet loolu du ma sa am du ma sa am loolu bu bu toos moom wax dëgg yàlla. du ma sa defaat loolu. waa su yeboo moom. ak ñi koy xalaat. ak ñi ñi nekk seen bopp dama leen wax rek. Mm. ak ñi ñi ñi tëdd di xalaat loolu mu am xew am na ñoo xamante ne géew yi ñu ngi xalaat loolu parce que xew mi. day encaissé. Mm-hmm. inter site internet yi ñi ngi xalaat loolu. Mm-hmm. ndax site seen internet dox. neen nga ñiy wax ñi ngi xalaat loolu mais de ah loolu du ma sa am. gaa yi de nee nañu remariage ñoom ñu ngi xaaraat. du am du am du am du am. pour ngeen tënk pour ngeen tënk. Mm-hmm. ngeen kii loolu du am. Hmm. léegi loolu du am loolu daal nga gis. léegi loolu loolu loolu loolu Mbaye non loolu du mos am c'est jamaïman autour autour autorisé c'est jamaïman autorisé loolu du mos am. non kii dafa dafa non kii kii kii dafa bon quoi bu laa yow yow yow. <laughs> yow. waaye délégué. ñu ngi lay ziar. Ah, yaa ngi ci jàmm mais ci loolu nag ah xaaral ma def ak lii rek délégué bàyyi leen ak délégué. too too toogal ba am. délégué ñu ngi lay nuyu ah. Eh. mais délégué parfois. mbay kontaan nga nag. Ah, ban ban mbay sa xarit la. waay la. xarit boobu moom de. <laughs> ah bëgg ñu yàqoo. <laughs> nañ yàqoo. bàyyil internet bi ngay toog di yàq ay audio ak yooyu. Eh, dama ni la da nga bëgg ñu yàqoo. waaw bàyyil internet bi ngay toog di di di jaxase. fan bi fan